qui est régie par des lois et règlements et que nous tous nous sommes tenus de respecter le bon fonctionnement des institutions et que nous tous nous savons que le président de la République, la clé de voûte des institutions, est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour euh, constater ce qui s'est passé, c'est-à-dire analyser la situation suite à la sortie de Monsieur le Premier ministre hier, qui a, si je ne peux, si je peux le dire, pratiquement réduit l'Assemblée nationale à sa plus simple expression, si je peux dire ça. Parce qu'il a dit que d'abord, il ne considère pas l'Assemblée nationale, qu'il ne viendra pas tenir sa déclaration de politique générale, qu'il allait faire sa déclaration de politique générale si on euh, euh, rectifie par le règlement interdit le devant un jury populaire. Mais de qui se moque t Le Sénégal n'est pas une publique Le Sénégal, c'est une république. Maintenant, dans une république, république, on peut faire une déclaration de politique générale dans la rue. Mais ça, l'institution que nous incarnons, le respect des institutions que nous voulons n'accepte pas cela. C'est pourquoi le bureau a décidé souverainement de sursoir aujourd'hui à la le débat. Le, au débat d'orientation budgétaire. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure le ministre des Finances et son équipe se sont retirés. Et l'Assemblée nationale, conformément à son règlement intérieur, à la, à la, la, à la Constitution, va faire tout à l'heure la fermeture de la session unique ordinaire de l'année. pour passer à autre chose. C'est pourquoi je voulais dire que la conférence des président aussi a été informée et en tout cas, nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale de prendre contact avec le président de la République pour que ce problème puisse être réglé. Parce qu'on voudrait nous piéger en voulant nous amener ici pour qu'on s'amène à des joutes oratoires ou bien quand même des euh, confrontations physiques, comme ils ont l'habitude de le faire, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Mais nous sommes des opposants, c'est vrai, mais nous sommes des opposants républicains, nous sommes des opposants qui respectent le Sénégal, et nous sommes des opposants qui respectent les euh, populations qui nous ont amenés ici. Nous représentons l'Assemblée nationale, nous sommes des députés de la République, nous ne sommes ni des députés de Sonko ni de la de la République. Au regard donc de, de, de l'importance de, de, ce débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, alors euh, est-ce que vous pensez que c'est vraiment opportune de votre part et responsable mais, la responsabilité voudrait que le Premier ministre, qui est par l'article 55 de venir, se, de venir faire sa DPG devant l'Assemblée nationale, respecte cela. Ça, c'est un. Mais cela n'est pas constitutionnel, le débat d'orientation budgétaire, je vous le rappelle. La Constitution, c'est la charte fondamentale de la République. La Constitution, c'est la mère des lois. Donc nous demandons aux Sénégalaises et aux Sénégalais de comprendre que l'Assemblée nationale a été responsable, je dis bien très responsable, de ne pas aujourd'hui travailler à avoir une confrontation physique entre des députés et en toute souveraineté. Le président de l'Assemblée nationale en tête à pris cette décision et nous tenons informer l'opinion nationale et internationale que l'Assemblée nationale respecte la Constitution, l'Assemblée nationale respecte les Sénégalais, l'Assemblée nationale respecte les lois et règlements de ce pays. dama bëggoon wax rek bi nga xamante ni moom moo indi wundu lii mooy ñun ñëpp gis nañ ki nga xamante ne nii mooy le premier ministre de la république du Sénégal jàpp ne moom ba tey opposant la ndax moom li mu li li mu xam mooy saaga wax lu ñaaw xaste ak sos waaye dafa xamul ne tey jii premier ministre république Sénégal la moo tax démb ngeen gis ko mu génne ab lettre yaakaar ne ci république la nekk mu ne dafay def déclaration politique général ci mbedd mi maanaam day dem daal foo xam ne day woo sénégalais yi woo ay ñeneen ak ñeneen pour def déclaration politique général ñun ku ñu yàpp ñii ku ñu yàpp Sénégal république la Sénégal réew la boo xam ne dafa am ay roi ak règlement dafa am constitution constitution bi dafa wax ne article cinquante cinq waxul sax après nangam na daf ne le premier ministre fait sa déclaration de politique générale après sa nomination loolu yéen ñëpp yëg ngeen ko te sart ndey réew mi tey jii bu ñuy ñëw naan woy règlement inti ay faux fuyant la te bu liiree ci conseil des ministres bu 5 juin communiqué bi troisième page bi moom ci boppam wax na moom moo wax ci communication premier ministre mu ne maa ngi préparé sama déclaration politique général ci semaine yi di ñëw ci assemblée nationale waa léegi lan moo changé ci diggante bi loolu nag war nañ koo xool mais Ousmane Sonko nit ñi xam nañ ko moom xam nga ñemewul confrontation intellectuelle ñemewul wax même conférence de presse yéen ñi tas ko taxawaare day ñëw wax rek jóg dem yoonam kenn du ko posé question loolu la xam république la dafa war a ñëw fii ñu mu wax ñu projet bi parce que projet bi xam naa ne comme ne woon nañ septembre lay pare wala fin d'année moo tax amuñu projet amuñu déclaration politique générale amuñu programme wax ji yëpp loolu la je pense que quand même il fallait être courageux venir dire que vraiment la représentation politique bi euh, représentation assemblée nationale man aw ma projet projet bi pareegul su boobaa ñun sax mën nañ koo comprendre. ci njëkk non déggoo ma la non déggoo ma la loolu eggaguñ ci. man je pense que li nga xamante ne nii moo waral suspension bi mooy moom ci boppam démb gis nga mu def déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. nit nag boo joxul worma assemblée nationale ki nga xam ne mooy sart yi nga xam ne moom la ko constitution jox muy le président de la république président de l' assemblée wax nañ ko ne ko. na jokkoo ak moom pour que ñu régler lii ndax moo gën ñu ñëw fii di xeex xuloo xam nga ñoom bi ñu nekkee opposition saaga xuloo yàq micro yi te gis ngeen assemblée nationale bi ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu normale ñu changé lépp du ñu nangu nag nit ñi ñëwaat comme ñoom loolu lañ tàmm toj taabal yi euh, dindi micro yi li tax ñu sursoir mbir mi moom mooy débat d'orientation budgétaire comme ni ma leen ko waxee bi loolu amee bureau bi moom moo réunir en toute souveraineté daan ne premier ministre bi nga xam ne wegul assemblée sarga na assemblée wax assemblée joxu ko cër je pense que kooku te dañu ne constitution li mu wax dafa ne gouvernement dafa collégial donc ministre am dañu ne balaa ñu koy déglu wala ñuy wax ak kenn il faut que loolu président de la république lijjanti ko ak président assemblée balaa ñëw ñu ci leen léegi nag session bi dinañu ko tëj léegi pour que ñu jàll ci leneen. jërëjëf merci merci mi ngi noonu ñun ñoo ko euh, déglu en tout cas. effectivement euh, kon ki nga xam ni moom mooy euh, honorable député Abdou Mbow moom mi moom moo daal di. effectivement leer na nañu atu atu leen tuuti atu leen tuuti. yëf yi leer na nañ fi mu ne nii. fi mu ne nii li nga xamante ni moo jëm ci débat d'orientation bi annulé nañ ko euh, te dégg nañ kàdduy Abdou Mbow même si Abdoulaye Wilane n'a pas pu être euh, aussi convaincant par rapport li nga xamante ni mooy yëf yi dugg ci biir alors euh, donc li ñu mën a jàpp débat d'orientation bi jeex na. section de clôture lañ jëm euh, ci assemblée nationale li jëm ci euh, plénière bi donc euh, comme ni ñu koy wax ni ñu ko doon waxee sànq rek dafa mel ni yëf yi xaw na léger tool tuuti ci li nga xamante ni moom mooy tey mu dàkkal li nga xamante ni moom mooy tey débat d'orientation budgétaire parce que dafa am solo li nga xamante ni moom mooy tey politique boo xamante ni la définition de la politique du gouvernement donc loolu bu ñu ko dàkkalee tey euh, est-ce que du am ay répercussions ci li nga xamante ni mooy les actions du gouvernement euh, fi nga xamante ni moom mooy ëllëg te loolu askanu Sénégal moom moo ci sonn loolu yëpp yaakaar na il faut que ñu bàyyi ko xel te bu ñuy agir aussi ñu mën a agir en tant que républicain Abdou Mbow euh, moom mi taxaw fi sànq gis nañ ko ci ay interview wala bokk ci ay. waxtaanam yu bëri ay sorties yu bëri mu dellu ci li nga xamante ne mooy posture bu ñu war a adopté ci fi nga xamante ne fa lañ tollu te ndax ci ñoom ci opposition lañ nekk jàpp na ni posture républicaine la ñu war a adopté te wax na ni ki par rapport ak seen comportement par rapport ak li nga xamante te noonu nañ annulé euh, li nga xamante ni mooy débat d'orientation bi mais aussi malgré que nag annulé nañ ko il faut ñu xam ni aussi dafa am loo xamante ni tey euh, dafay dafay am impact ci tey les actions du gouvernement et que loolu bokkul ci li nga xamante ni euh, donc war nañ ko mën a naw ci assemblée bi loolu xaaruñu ko xaaruñu assemblée ci euh, yaakaar naa ci ci yi ni mel bu ñu sañoon nag comme ni ko Abdoulaye daan waxee ñu nitte ah moom moo am solo maanaam autour d'une table que l'on puisse discuter ensemble les sorties d'Ousmane Sonko l'engagent mais quand même quand il s'agit de prendre des décisions pour le peuple sénégalais Ousmane yaakaar naa dina ci tuuti torop parce que tout simplement c'est le peuple qu'on doit mettre au-dessus de toutes euh, les actions qu'on doit poser. Euh, à l'espace de tout à fait donc Ousmane waaw moom la moom mooy moo tax ma ne la dafa xaw a léger trop euh, c'est vrai que ñoom démb